mbokku Pikine mbokku Texaco asalaamualeykum mbokku département de Pikine damay tàmbali di jéggalu yeneen commune yu taxaw di xaar ñëpp wax nan ma ko commune yu bare caaroy caaroy sur mer mbaaw ñëpp ñoo ngi taxaw di xaar jàmm gën si kàb mbaaw kulim a ngi taxaw di ngeen ni xam ni campagne bi dafa gàtt moo tax doo ci gox yi nañ ko bëggee mais bu doon sago commune bu nekk daan fa yegg mais ci ñin yeggul ñu comprendre ñu rek bu ko defee mën ñu jéggal mais may féliciter bu baax a baax le coordonnateur départemental du président des cadres muy Abdourahmane Sarr bu ma ko féliciter féliciter tous les coordonnateurs communaux bu ma leen limee damay juum mais ñoom ñëpp xàmme naa leen gis naa ñoom Seydina ñoom El Hadj gis naa Tafa gis tout le monde Samba Diop leen ñëpp gis naa leen Ramatoulaye Adja et tout le monde Lamine tout le monde gis leen bii Modou aussi yéen ñëpp gis leen ñoo ngi jëm élection présidentielle bu am solo bi nga xam ni li ci ëpp njariñ mooy fexe ba ku nekk le 24 mars nga xëy dem woote ji woote ji ñu am changement bu war département de Pikine ku nekk xam na ni tawal yi bare na fi chômage bi kenn umpale wu ko ci jeunes yi te gis ngeen li ñu développé ci sunu programme bi ñu tuddee le Sénégal bon à vivre et beau à liñ ci xalaat yépp jëmale ko ci xëy ndaw yi jigéen ñi la même chose xam nañu ni sonn nañu te soxla nañu ku jàppale te ci programme boobu it am na ay projet yu bare ay accompagnement yu bare ay financement yu bare yi nga xam ni ñoo ko jagleel jigéen ñi ay jàmbaar ngeen kenn amul seen fay yàlla du am seen fay yàlla du am fay la question des inondations nga xam ni question bu yàgg am la ci yenn commune yu Pikin yooyu aussi travaillé nañ ci pour bu yàlla mayee ndam mën ci indi saafara bi war marché syndicat fàttewuñ ko yeneen projet yi nga xam ne ñoo am Pikine amul ñu fi fàtte wante it fàttewuñu secteur informel bi secteur informel bi ñuy contribuer actuellement ci sunu PIB xam na lu muy tekki et comme ni ma ko waxee démb secteur informel boobu dina am accompagnement de l'État pour ñu gën dem vers formel ñu gën leen aider formation gën leen aider ci ñu gën a yokk seen capacité pour que li état di joxe bitim réew ñu mën leen ko bu ko defee ñoom ñu gis njariñ ci li ñuy liggéey. na ngeen xàmme nag bulletin bi bulletin bu jaune ak blanc bi ngeen xàmme ko bu baax bu ko defee bu élection yi ñëwee dem. baat ci bulletin bi ba mu mat sëkk bu ko defee ñu bagaasal gars yi le 24 mars ñu jëlee leen fii indi ko changement qualitatif à la tête du pays